xusil awaamira ma amtisaali yasun man jàlla an il misaali wajtani bil man yaanhu bi firaar minhu wa min xubbi sawi sulmi suraar asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit mbokki taalibe yi ñu ngi fii ci saam mag sëriñ baara xuraja ci kanamu sëriñ seex mbàkke mi nga xam ne moo di xalifa xalifab Serigne Bara Khourédia ak mbooleem njabootuk Serigne a Khourédia ñu fas yéene woote bis bi nga xam ne ginnaaw bu nu jotee ndigal ci xalifa général de Mouride Serigne Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg lool te wér ci kilifteefu Serigne Abdoulahi Mbacke yàllaay buur wàcc ci Serigne bii nga xam ne nag moo am mbégte di yëgal mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi bis bii nga xam ne seen bisu sëriñ la di seen bisu waajur ñu koy defal sëriñ Baara Khourédia fii ci saamuk sëriñ Baara Khourédia bis boobu nag ñu jàpp ko altine war a tolloog ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmm gi war a tolloog ñaar fukki fan ak juróom ci weeru tubaab bi ñu di ko amale fii di ko yëgal mbokki réew mi la ko tàmbalee ci sëñ Mourou Moussa njabootam ba ci njabootu soxna fa Dia njabootu Mamor Diarra nag ñoo ñoom ñoo ko seq ñu bokkal sëñ Mor Anta Sali itam ñoom ñëpp ñu ngi leen koy yëgal la ko tàmbalee ci maam Thierno ba ci Cheikh Massamba bàyyiwuñu kenn bay bàyyiwuñu fenn ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp mbirum administration bi itam la ko tàmbalee ci président de la république wàcc ba ci gouverneur bi ñu bokkal région bi ak préfet bi ak sous préfet ñoom ñëpp ñu leen ko yëgal maanaam lépp lu aju ci saam nag ñu ngi leen ko yëgal ndax suñuy dëkkandoo lañ. ndax saam buñ nee saam sëñ moor Diarra saam nag foo ko mën a dégg sëñ moor Diarra la kon nag ñoom ñëpp ñu ngi leen koy yëgal ndax bis bi nag ñoom ñoo ko bokk. sëriñ bi nag nee na nun dongo yi mi ngi nuy soññi ci takku ak pëstéef ba nga xam ne ni bis bi war a mel mu mel ko loolu nag noflaay du ko fekke poos du ko fekke waaye na nga xam ne noonu lañ ko daan defee démb ak bërki démb kenn ku nekk fa nga jàppoon te nga xam ne ba nga fa jàppee awoon na aw yoon na nga dolli jàppin woowee ba mu gën a aw yoon koo xam ne kii am nga ku la ci dimbale nanga nga woo kooku mu dimbale te ak ku mën a doon ak fu mën a doon saam nag la ñuy woo saam nag bin koy woo woowunu fenn bàyyi fenn képp koo xam ne fa nga nekk jàpp nga ne ci saam la ne yow mooma yaa war a taxawee bis bi waaye képp koo xam ne nag jàpp nga ne taalib sëñ Tuubaa la sëriñ bi moom mi woo ci bis bi mbokki jullit yi mbokki taalibe bi ñoo ngi leen nuyu baax ci turu Serigne Cheikh Mbacke xalifa Serigne Bara Khourédia di euh, wàcc sunu kàddu ci turu sët yi ak mbokki taalibe yëpp ku ne xam na ne kàddu sëñ bi ni ko Serigne Fallou Mbacke waxee euh, jot na ta ëmb na lépp Serigne Sam kan lim ci waxee ci mbokki taalibe yi leer nañ xanaa li ci mooy ñu pësee fa bu baax rek seeni waajal bis bi def ci suñu yitte def ci suñu taxawaay ñun ñii di njabootug sëriñ bi di sëti sëriñ Bara Khourédia ñu fas ko ànd ak taalibe yi waajal bis bi tàmbalee ko ci euh, liñ naan set setal muy bale dëkk bi buub ko ak lépp loo xam ne waajtaay la ñu fas yéene ko ba bis bi ñëw loolu àjjuma lañ ko jàpp la ca dolli ko sëriñ bi dafa waxoon ne nañ ko yëgalaale kilifa yi nga xam ne ñoo bokk ak ñoom biir dëkk bi te sëriñ Fallou am na ñu ci lim te ñëpp ñi di yëngu ci wàllu àdduna waaye sëriñ bi dafa wax ne ñoo ngi woo mboolem daayira yi nga xam ne ñoo aju ci biir dëkk bi saam soppee sëñ Bara Fodé ak ñi nga xam ne yeneen daayira lañ yor te yeewoo saam wala li ko wër ak biir réew mi ak bitim réew ak mboolem dëkk yi nga xam ne wër nañ Touba yëpp dëkk bu ne euh, bari na ci dëkk yoo xam ne mënoon nañ koo lim am na ci yoo lim nañ ko ci rajo bi sax ay taalib ne fa ay wóllare ne fa ak euh, bitim réew képp koo xam ne daal suñu yitte mooy sa yitte suñu soxla mooy sa soxla noo ngi lay woo ci bis bi nga xam ne amuñu benn bis bu dul moom ndax kii moonu boole ci Serigne Touba muy jëmmi Serigne Bara Khourédia muy jëmm joo xam ne nag euh, Serigne moom ay mayam bari na lool. waaye sëriñ Mor Diarra daf ma laa dénkoon yow mat Lamine kon lu la waaye jox jëfandikool su ëllëgee maay fay kooku kon mat naa lebal. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi bis baa ngi noonu ñu fàttali leen ko mu war a doon altine ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmm gi ñu di ko amale fii ci Touba Sam. saam ak sëriñ Baara Xuraja programme bi nii la fas yéene tëdde fas yéene nan bu nu xëyee amal njàngam alxuraan ak xasida ak salaatu ala nabi ak bernde buñ demee ba 19 heures nag ci la ñuy amal cérémonie officielle bi nga xam ne baaxoo nan ko fee amal waaye balaa cérémonie bee am sëriñ Gana Messere Mokhtar moom la ñuy jox mooy conférence bi nga xam ne mooy waxtaan ci dunduk sëriñ Bara Khourédia ak mboolem kii bu noppee nag ñu toftal ci cérémonie officielle bi bu ca guddi gaa la ñuy wéyal njàngam xasida mi nga xam ne baaxoo nan ko fa amal jàngkat yi nag ñu ngi nii moo di sëriñ daam Dieye moom bokk na ci jàngkat yi bu noppee sëriñ seex Njaay dina waxta di moom it ci jàngkat yi la sëriñ seexu naa mbaj moom tamit mooy àggale li des ci guddi sëriñ bi nee na bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn mu ngi ñaan ci barkeb sëriñ tubaab mi tax ñuy woote ak sëriñ Baara mi ñuy wooteel bis bi ku fi ñëw yal na yàlla faj say aajo ci barkeb seexul xaddim wasalaamu aleykum wa wa barakaatu.